configuration yi ci am coppiku yi euh, Pape Sané lii euh, Mame Matar wax ni lu mësul am maanaam ña ñu daan ña daan attaqué waate cette fois-ci ñoom lañu ñu attaqué. Mm-hmm. Euh, te li mu leen jural xam naa ne ñoom du ñu reconnaître jamais ne communication ki moom politique bi ci am que défaite jël nañ ko boo boo xam ne nii xëy na mosuñ koo am seen adduna ndax Hamas li ñu ñam ci attaque Israël mu jural leen li ñu leen jural danañ ko danañ ko bàyyee ci ginnaaw ñam nañ ko mu mu mu mu dox lool ci ñoom. c'est vrai que ñoom it perte ñi ngi ciy perte ay doomu aadama yu bëri waaye ñoom li leen intéressé rek mooy faire te def nañ ko est lii dinañ ci gaaw a génnati attaque bii nga xam ne def nañ ko waaw xam nga dama fàttali déjà ma hmm. tàllal euh, Mame Matar euh, hmm. di ko ndokkeel encore ah, mais gis naa ni que léegi tu reprends des couleurs alhamdulilah <laughs> sant yàlla sa faneye bi ma lay woo yaa ngi baat bi nekkul woon mais sant yàlla macha allah yàlla na yàlla na yokk bu baax a baax voilà damay fàttali sànq bi création Hamas et l'origine de la création du Hamas nee naa ca jamono yooyu mu ngi tombe Yasser Arafat commencé jël une envergure internationale kii di François Mitterrand dalal ko Élysée le pape dalal ko en 1900 en 1988 euh, le roi d'Espagne rek accueillir ko loolu noonu nag percée internationale diplomatique boobu la Israël gisoon bañ euh, gisoon xam li que lii mun na li mu mun a jur ñu ne comme ñii dañoo yàgg di xeex ak ñun. Mhm. nañu continuer naan njulit ñii ay terroriste nañu. ci loolu noonu nañu créer susciter la création du Hamas. Mhm. mais gis nga euh, kii Papa Maguette. Mhm. boo gisee attaque bi metti mooy li Mame fàttali léegi. mooy comme diggante Ben Laden. Ah. ak la CIA. Ah. CA dañ ko dañ ko jàpp formaté ko te xamuñu woon lu ñu fàtte woon mooy que Ben Laden julli la te amoon na lu mu gëm am na lu mu gëm. mooy ba mu demee ba xam ni que ñii. dañ ko doon utiliser dañ ko doon utiliser contre diineem mu ëlbatiku nag xeex leen façon xeex boobu. Mm-hmm. Hamas moom it noonu la bi mu toogee. juste pour combattre la percée diplomatique de Yasser Arafat. mooy moo continuer di wan askanu àddina bi ni que arab yi jullit yi ay ay terroriste nañu ay bandi nañu. les services israéliens di leen financer. nànk-nànk di leen financer. ñuy def ay attaques par-ci nànk-nànk ñuy toujours ñi ah, bu ñu waxee au niveau de la presse internationale ñuy taxer. le Hamas et les Palestiniens de terroristes. Mm. pour confirmer encore li li ma ma Matar wax. Mm-hmm. mais ci diggante bi 89 ak léegi. Mm-hmm. Hamas daf ci jàng lu bëri. Mm-hmm. Israël dem na ba xoolal souterrain yi yi nga xam ne moo doon alimenté. Hezbollah ak euh, euh, le mou le mouvement de Georges Abbas là. Georges Abbas le FDL. Fatah ak FDL. waaw non Fatah euh, Arafat la woon. ak euh, Georges Abbas euh, kii la woon fàtte naa. front de libération front de libération. la Palestine voilà ñii leen doon financé. xoolal seen circuit de d' armement yi ngi fi ñu doon kii yëpp. Israël demoon na ba fàtte yëpp tunnel yi doon jógee Égypte yooyu yëpp mu fàtte ko. mais mu fàtte woon une chose. mooy que ñoom ñoo doon jàngal na ñuy defaree ay bomb ñuy defaree ay mbir. tu ñoom ba ñu demee ba jàpp tëj loolu yëpp foogoon na geex na ñee ñi ngi woon ci suuf di liggéey boole ci nag. dañu am ay ingénieurs yi nga xam ne dans pratiquement tous les grands pays mmh. palestiniens yi da leen fay fekk mmh. ñuy liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di dajale di jenc di liggéey di dajale di jenc di liggéey di dajale di jenc mmh. gis nga nag moo tax attaque bi euh, ni mu dalee ci Israël c'est plus réaction Israël bi actuellement c'est plus une question d'orgueil parce que nit ñi dañu jàppoon ne que Israël dafa nekk l'une des meilleures armées du monde dañ jàppoon ni que le service les services de renseignement israéliens étaient mm. les meilleurs du monde mm. ba pare nag am ay dëkk occidentaux yu mel ni États-Unis yi nga xam ne dañ leen jàppale mm. nekk seen wet mais malgré tout ça le Hamas ñëw def leen la nga xam ne kenn mosu leen ko def léegi nag le problème qu'il y a mooy ñu ngi bloqué dëkk bi di exploser ay kër cest à buñ ne kër gi euh, Pape moo fi dëkk Pape Sané amoon na benn frère bi nga xam ne ci gars yi la bokk. Mm. dañuy bombarder kër gi kër gi yëpp. Mm. yooyu day gën a susciter encore. Mm. ñii nga xam ne mooy ndaw yi nga xam ne ñoo juddu. toll ci seen digg doole day leen di susciter tey jii ñu dellu bokk ci cause bi maanaam ci ay mouvement yu mel ni Hamas. tey looloo tax yaakaaraguma. ni mbir mi dana fi yem. Mm. parce que tey Israël États-Unis et consorts daañu jéem a jouer mm. seen rôle mooy lan. Mm. mooy wan ni que ils sont invincibles. mooy wan ni que ils sont les maîtres du monde mais dafa am la nga xam ne aussi il faut que ñu koy jël en compte. Mm-hmm. mooy que le nombre d'otages yi ñu jël c'est une première. mosul am depuis 1948. Mm-hmm. toutes les guerres yi am si diggante ñaari dëkk yi. c'est la première fois un nombre aussi important d'otages ñu jël ko. ak fas ak ñu jël. waaw te Israël ku xam seen politique. ñoom dañ jàpp ni que benn bakkanu Israël. mais moo gën un million de bakkanu euh, kii jullit. ñoom loolu lañ jàpp. donc tey mu am un sérieux problème mooy d'ailleurs c'est le débat à la Knesset moo tax yenn députés yi accusé Benyamin Netanyahu ne ko yow non seulement da nga dof mais ce gouvernement bi c'est un gouvernement de corrompu ba pare tu es allé ay partenaires yi nga xam ne ay idéologues yu dof ñoo ñoo tax ñoo ñu indil problème bii. parce que ni ko maam Matar waxee. la logique aurait voulu que tey. ñu déclarer à l'issue des accords de Camp David mooy que ñu déclarer l'existence de État palestinien. mais gis nga à chaque fois que bu ñu demee ba koy jege rek. mu am benn mbir bu ñu dugalaat ci biir. lu mel ni la reconnaissance de George de Donald Trump jël Jérusalem nga xam ne wax dëgg yàlla kooku amul benn jullitu Palestine wala jullit ci àddina bi buy xalaat benn moment rek ñu ne Palestine c'est pas un blasphème dafa mel ne tey jii ñu ne woon Kaaba gi mm-hmm. Mm-hmm. Israël moo koy moo koy gérer. Pape Saliou doguma la parce que euh, président turc bi nu mu tuddati. Euh, euh, lii nga wax. wax na ko dafa ne bu jullit yi sàggane. sàggane ba Netanyahu teg loxo masjid al Aqsa. dégg nga nee na ëllëg Kaaba ga la jëm. voilà parce que su benn symbole islamique daanu. la Kaaba n'est plus en sécurité. sécurité. masjid al Nabawi fii sang bu tedd bi te n'est sécurité. parce que mm-hmm. seen itte. Mm-hmm. au delà. du Hamas et de la Palestine c'est d'éradiquer mhm. l'islam nga baal ma dama ci doon yokk loolu voilà donc loolu c'est une insulte mhm. mhm. alors moo tax yaakaaruma tey jii surtout avec le Hezbollah parce que depuis presque quinze ans Hezbollah déggatuñ leen dañu toog ñoom di lijjanti li ñuy lijjanti seen fële ca nord Liban defatuñu ay perse di attaquer Israël et tout mais ni situation bi ni mu jógee nii. Mhm. ñu gis le monde occidental daa di jóg comme un seul homme. Mhm. bañ a accuser bañ a condamner Israël mais di condamner plutôt Palestine mhm. ah, ah, ah, kii la amance et la la Palestine. ñoom nañu condamner tey fa am ay éléments de langage ni ko ma Matar waxee yi nga xam ni soo xoolee les chaînes de télévision. occidentale loolu la ñuy wax te loolu il faut que par devoir de vérité ñu koy wax benn bi dama da ngay déglu nii par exemple. Mm-hmm. bu ñuy wax ci mbirum Palestine lu ñuy wax. Mm-hmm. waa Palestine ñooy attaqué doo mës dégg ñu ne Israël attaqué na. Mm-hmm. Palestine attaqué na Israël mu ngi défendre ci tele yi occidentale benn élément de langage yi nii beneen élément de langage bi. libanais yi. wala palestiniens yi amuñu droit fayu amuñu droit euh, rey waaw waaye nag Israël am nañu droit ñoom rey waaw parce que dañ leen di attaqué beneen ñaan la lii di Israël di def légitime défense lañ ko tuddee ñoom loolu lañ koy wax c'est-à-dire Israël bu ñëwee rey mille deux cent personnes deux mille personnes amul problème waaw mais bu ñu reyee benn israélien ñu ne Israël riposte ñu ne loolu légitime défense la benn bi nga xam ne ñu ne bon civil yi ñuy reyee et consort buñ ko defee comme li Mamata doon rappelé deux mille vingt et un yi fi amoon bu amee condamnation bu nga xam ne moom lañuy def dañuy naan on appelle Israël à la retenue mais bu dee tey Palestine moo ko def communauté internationale bi nga dégg leen ñu ne. ce sont des terroristes. ay actes terroristes. donc mu am ay éléments de langage yi nga xam ne ñun nunu nous devons. tamit parce que yàlla moo dogal ñuy porte nekk ay porteurs de voix. ñoom kii Mamatar nekk ay nit ñi nga xam ne. wax fa dëgg yàlla seen kàddu dafa am fu muy egg seen jëmm am fu mu tax seen taxawaay am fu mu àgg donc yoon la des fois ngay toog di restituer un peu les pour que ñu bañ jël histoire bi. Ah, ah. am fu ñu koy teg ba nga xam ne bu subaa. Hmm. man mii am na nu muy demee sax ma xalaat ni que ñii nga xam ne ñoo nekk Palestine. Hmm. la ñuy def ce n'est pas de la résistance mais c'est du terrorisme. Hmm. alors que ñoom la ñuy def see de la résistance cest dañ leen fekk ci seen moomeel. dañ leen fekk ci seen moomeel. noot leen ci. bund xataat leen ci léegi nag di leen ci rey ba pare ne leen nag amatu leen benn droit di taxaw naa na ngeen koy kaas. d'accord donc loolu. à l'image de l'état du Sénégal bi nga xam ne ni ko buuru Maroc dafee